nuyu naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci suñu revue de presse teel sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan max xew ci réew mi askan sunu gaal yëgle kaay gi na yëgle kaay ne kaa xale bu góor bi laa wax l'observateur yëgle kaay dëggal ni moom kay ñaari paaka la ko jam mu daal dee faat est-ce faat gi nga xamante moom la faat faru rakkam ji la yëgle kaay gi ñàkk ànd ca diggante ba rekk ko waral réew mi wóoratul de ma ne mi kay kenn xamul moom la ñu faatoon ci manifestation yi di elew ga Moussa Korkaba lay wuyoo yëglekaay gi ne ay waajuram day denc nañ ko suul nañ ko ci naqar wu metti lool ba yéemee enquête yëglekaay ni ma ak fii réew toll dund gi mi lay suukar réer mër góorgóorlu yi yëglekaay gi ne ci koor gi le borom kër yi seen loxo jotul seen ginnaaw fu ne ñu fay dóor seen bopp ñoom détailleurs yi day dañoo tiij waaru jaaxle ndax accusé nañ leen ni leen yéen yéen a stocké li nga xam ni moo di suukar si boole ko ko ñoom day neeñu amuñu man-man bi bay am kàttan bi yëglekaay ni ma askanu sunu gaal gile bu koor gi dikkee ñëppay soppi dox li moom day li ko yëm te jaaxal ko moo di ana lan moo waral sabab xale yu jigéen yi di soppi accoutrement maanaam la ñuy sol xale bu jigéen boo ci gis ma ngay jéem a liib liibeeka sellal ay waay buñ ko wéye woon les éco yëgle kaay ni ma lii may seen ni de du neex benn yoon ci waajuru ndongay njàng meeg nar a taga témbe naxasaay ci réew mi askanu sunu gaal ndax manifestation yi lée ay cours yu ñu suspendre yëgle kaay gi ne secondaire nekk ci grève voie supérieure di aver naan ñoo ngi la yëgle bi boppam niki tey ci altine lay commencé ko war na door niki le 31 gii nu jëm wal fajri quotidien yëglekaay ni ma fekkoon na ñoom ñi yëngatu ci wàllam njàng ak njàngale di élèves yi ak ñi jàngal fas yéene woon a ci mbedd yi nii kii suba ci talaata gi lee ndongo yi jàng day di élèves yi nee ñu li ñu bëgg moo di ñu libéré ñi nga xam ne ñoo di seeni naataango yi sinon fi nu jàpp duñu ko bàyyi ka jóg jàppale ndongo daara yëglekaay gi nee kooku alaaji morgay sopp na bi lay wuyu ceeskaay benn dëkk ñaari concours récital tarim alxuraan ubbil yéene kaay gi ndonga ya kontaan nanu lool ci teewaayu da nga xam ni moo di seen avocat yëgle kaay gi nekkoo ko maître Abdou Kane lay wuyoo daara ya ca Thiès ak jàngalekat ya day neeñu bu ñu sañoon nag njiitum réew président Macky Sall jël forêt classée bi dénk ko Alaaji Mor Gueye soppe nabi moom mi ci man fuufu ëpp ci doole bëri ci xam-xam ci dëgg-dëgg moom la ñu wóolu ma ne ca ndajama kay Abdoulaye Dieng njiital AIBD sax nga ca woon ajaratu Marème Diop si laa docteur Ndiaye moom kay la fa ay autorité bari na nga fa woon yëglekaay ne ma ci ndaje mi nga xam ni moom la professeur Ibrahima Faye woote woon yëglekaay gi ne ngir mi la ndaw yi xamaat fu ñuy teg seen tànk bu baax a baax moom professeur Ibrahima Faye day fa séene def tournée ci jumaa yi mag yi ci réew ma askanu sunu gaal rawatina yooyu ceeskaay benn dëkk mi li ci réew sunu gaal dajab Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang tribune yëglekaay gi ne ma inévitable lu a xew ñoom ñaar daanu jàkkaarloo niki le 30 gi nu jëm ci lañu fa séene am confrontation finale semaine bi kay yëglekaay gi nee ma bu nu wattuwul dëgg semaine bi nar naa café balaa neex saf jar revue de presse du jour ko xamle su ay yëglekaay ni ma njiitum réew mi président Macky Sall noppi na ngir combat de réunion secrétaire exécutif bu APR bi lee léese ko yëglekaay ni ma njiitum réew mi day ma ngay menacé ñi nga xam ne ñoo di les fauteurs de tour trouble dëkk bi du nangu kenn kenn rek di ko taal ci riiw maskan sunu gaal gi lee jooju la jamono yëglekaay gi ne Mamadou Moulay ma ngay dóor boppam fu nekk laa la wax ngir sauver dimbali ñi nga xam ne ñoo di aw askanam grand place yëglekaay ni ma dem na ba ville ci riiwum tugal ngir amal fa ay simbalage ci teewaayu monsieur le ministre Mamadou Talla yëglekaay gi nee kat dem nga dara waralu ko lu dul jàppale ay ndawam ci lu jëm ci wàllum tàggat yaram sport wàllum entrepreneuriat tuuti day ki nga xam ni moo di ndaamal kajoor yëglekaay gi ne kooku Idrissa Seck li wuyoo fa naa def point de presse du quotidien yëglekaay a wax yëglekaay ni ma a wax nekk ci Cees kaay benn dëkk ñaari gaar ñu ngi koy teg pression de ak waa diaspora ba ngir mu nekk candidat du quotidien yëglekaay ne ma bu boobu boobaa de mooy nekk la fin de compagnon diggante Idi ak moom day jeex bu dee ni moom Idi daa samp ndindam mburu ak soow ma kay leneen la ñuy wax waaye dootuñu ko tut ci nekk noonu record yëglekaay dem seet sunu gaynde yi jàmbaar yëglekaay gi ne fi ñu toll ni def jaaxle ndax duel bi nga xamante ni moo nekk ci kaw attaquant bi diggante Bamba Dieng Habib Diallo ba ci Moulay Dia ana kan lay teg da ngay seet rek suuf gi tamit noonu la demee de ndax Abdoulaye Ndour mi nga xamante ni dafa ñëw rek wone boppam fësal mënam sabale yëglekaay gi neeman moom it di dëggal boppam ba dugal biyam bi njëkk ci réew maas kon Iliman moom man li muy def ba tax muy jël bal bi di ko foowee eh waaye daw Samba di def lu ko neex di bégal supporters yi lu jógee ci wéq jiital gi dem ca jàggi ruur ga ka nga xamante ni moom la booy ñaa deux jàggi woon ruur kooka Balla Gaye 2 lay wuyoo moom la Gaye day nee yaakaaru woon defet ci combat bi la de nu lamb yëgle kaay gi ni ma Ama Baldé ci jëmi boppam ñëw na nag wax jeexal polémique ba daan di nag li ma bëgg moo di booy ñaa deux ak Modou Lo laale <laughs> Dakar de du saf ñaari yoon moom si laatir bu baax rek bësal ma clavier ak jàmm ak a kenn jëf jërë ngeen jëf jàkkeen jëf mbokk yi xarit yi dëkkandoo yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi may teewlu un peu partout ci réew mi ak bitim réew fu ngeen mën a ne di ma teewlu biggee naa leen jox leen seen wàcc waaye waaye yéen li xew nii nag moom des su ci wax nag ah waaye yow sa sa faru rakk nag euh, nga ñëw faat ndax ñàkk ànd ci diggante waa loolu nag neex na ah waaw du du du boo waxee rek nu la nit koy waxati lu tax mu wax nangam waaye nag nag nag nag ah, nag nag mi ti na de doy na waar de ah waaw yow boo ci ànd noppil génn ci ah waaye réew mit gaaw nañ ci joxe information de moom ca saase laa wax stat yi ñipp naan ndaw si daa rey faram ndax da ko trompé ah jël photo eh, rakk xale bu góor bi nu faat yàlla na ko yàlla yërëm taf ko ci ah di wër di wax rek stat yi fu ne nit ñi di ci wax te ndekete yoo yoo yoo la ñuy wax dara dara du ci dëgg mbir mi wut noonu moo tax ba leen di gaaw a wax bàyyi leen di gaaw a wax ah mi si ci réew mi manqué gi arrangé wunu de wu nu waaw ñun góorgóorlu yi eh, wàññi leen nu dund bi dimbali nu wàññi leen nu dimbali dund gi dimbali nu wàññi leen dund gi dëkk bi daa dëgër kor gi saf tar ah fi ñu toll nii góorgóorlu yi fu ne fu ne rek ña nga fay dóor seen bopp ngir am lu nu dunde da seet lii rek ah ah ñu leen dund ah waaw école bi nag école bi moom yëngu waxuma la yëngu waaye weesu yëngu la def seet teet teet teet ah lii de kenn mënta wax lépp moo nees di waxee lépp ci réew maat kon sunu gaal yi euh, xel kafe gi rek ñu dem ba suba ak altine semaine bu jàmm ak salaam laa leen di ñaanal euh, Papa Thiaw yow laa fekk ca kaw maa ngi lay bëggee Aboubacar Dabo nuyu naa la Cheikh Omar Diop bëggee naa la bu baax a baax a baax a baax Ndumbe Tine maa ngi koy bëggee bu baax a baax Papa Diop maa ngi koy nuyu di nuyu euh, Pablo di nuyu bu baax a baax Bàcc di nuyu Mbaykan di nuyu Fanta Tunkara di nuyu Pulo sama xarit maa ngi koy nuyu di nuyu Amadou Dieng di nuyu bu baax a baax a baax euh, Dame Kunta di nuy El Hadj Sakho di nuyu Asta sama xarit Diagne distribution borom jàlla bi di nuyu Jibi Ba maa ngi nuyu Mamadou Diouf di nuyu Omar Fall borom Pire di nuyu Mor Seck sama xarit la nuyu mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi ma kenn doomi nday doomi bàyyi na ko ñëpp rek di teewlu saa su nekk ñu koy àndee ak yéen xeli leen kafe gi ngeen téye seeni kaas ba ngoon ngeen góox ay ci ñu dem.